dajale nañ ndax ñëw ci yow nga ne leen ba lañ cee def dara faw nga laaj laaj ko ci ndigal mu jox lañ ci ndigal ba noppi nag euh, soññee ci ngir xam le ne lépp yu suut wane Serigne Touba wane liggéeyu Serigne Touba wane li Serigne Touba bàyyi wa jaala kalimatan baaqiyatan fi aqibihi ndax bu Cheikh Mouhamadou Moustapha farluutoon kon sëriñ bi du ñibbi si Touba nee naa bu mu ko ma boroom fi yoon wi agsi tey di téeméeri at wane na ne Sëriñ Tuubaa noppi na ci yoon wi kon nag loolu wane li fi jaar ci diggante bi lépp ci mboolem kooku fi ma sa wutu tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Fadil ba ci Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir ba ci Serigne Saliou ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba ci Cheikh Sidi Mokhtar ba agsi ci moom mii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na suñu doon dolli dolli ay wéram dolli kattanam ba mu yàgg taxaw liggéey Sëriñ Tuubaa bi mu wax ne ne biñ ko ko yëgalee moom daa wax ne lim ci soññee mooy ndegam xam na li ci war lépp moom la waroon ba soññoo ne du bokk kenn ndax jàpp na ne positif am diggam ak Sëriñ Tuubaa ñoom sakkuñ ko laaju ko ko waaye moom ci boppam moo wax ne wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun ndegam moo fi nekkee Sëriñ Tuubaa jàpp na ne moo war a moo war a gàddu lépp def ko def ko addi Sëriñ Tuubaa moo taxit mu yëkkati eh, téeméeri million ne da ko bëgg def ci bis bi ngir li koy dundale li koy waaje lépp jàpp na ne ku ko ci fekk fekk si ko ca loolu moom addi boppam la joxoon diggam ak Sëriñ Tuubaa la ndax lii xam na ne yow da yaa fi ci kanam jóg di ko taxaw waaye yoon mburu yëpp ko bokk yoon yëpp nga koy defal da nga yoon yëpp nga koy defal nag te moo fi Sëriñ Tuubaa kon jàpp na lépp moom la kon nag mi ngi jot laa rek cantam ci yow ak ngërëmam mu yow ak ci njaboot gépp di ñaan yow itam nga yàgg wuutu sa wajuru tedd wa ndax xam na cër bi nga ko sédd ak fi nga ko teg ak seen diggante ni mu demee ak doyloo gi am ci yow ak yaakaar gi am ci yow ba am na bis boo xam ne wax na ci làmb ñëw ne ma suñu Ahmadu eh, ngatt moom suñ tubaale ci man loolu boobu maa loolu xam naa fi mu la teg kon ñu ngi sant bu baax di jeexal foofu kàddu yi di ñaan bis bi itam muy bis boo xam ne dana jëriñ àdduna sëpp ndax àdduna sëpp mën nañ ci jëriñu ndax lu am ci yoon wi rek ci téeméeri at yi amee waxtaane nag eh, li sëriñ bi def rawatina njaareem ji nga xam ne sëriñ Tuubaa yàgg na fa ak liñ ci war def lépp xam naa ñoom danañ ko leer ci yenn jotaay yu gën a yaatu waaye sëriñ bi daal mi ngi lay sant bu baax di ko di ko tàbbi tàbbi ci biir liggéey bi di ko defaaleel mboolem ko yaakaar sëriñ Tuubaa itam ndax hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min asaabin amin tu'minuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum moo tax mu jëli dóor ko ci biir te euh, suñu kilifa gu tedd gi suñu saaliw daana wax ne bokk na ci njëriñul addiya nee na daa wax ne bokk na ci njëriñul addiya dana fekk fu mu def dara dana fekk fu dara nekk mu baril ko waaye dana dana fekk fu lu nekk mu barkeel ko kon nag ci addiya jooju la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum sëñ Bassirou maa ngi lay nuyu ak ñi nga àndal ngay ndawal sëñ bi mu yebal nga ñëw di teraanga ji di sant di ci lëg ci gërëm su bi rek li li moom xër xërëm la waaye mën naa yées lii te ñu gërëm ko xam ne eh, dajale alal taxul ñu def ko wala eh, ci def rek réer ni ci noonu dëgg la dëgg la noonu ñëpp ko bokk yëf Sëñ Tuubaa ginnaaw màggal gi kon noo ko sosoon Daaru Xudoos sosoo moo tax jàpp téeméeri at yi waaw ah, buñ ko ci màggal fàttaliku si bu eh, ñu rata def it ndigalul sëñ bi leen ci am dafa ko def moo fi sëñ Tuuba kilifa yoonu murit lu waay di def ci biir yoonu murit moo ko war a jiite kon nag léegi lii nga xam ne moom lañ koy defal ci def nag sant nañ ko waaye séntu woon ci séntu woon lii moo tax bari na fi noonu lool lool kon nañ ko ci gërëm di ko sant di ñaan muy ga def lu mel nii te daje ci ngërëmal sëñ Tuubaa mi tax muy jëf xam na nag ni jàppee jàpp ko yoonu murid muy xër gum xër ci sëñ Tuubaa lu bokk ci moom fonk na ko jàpp na ko daanaka ñëpp la kon nag li nga wax it xëy na dafa baax rek waaye man wax dëgg yàlla lu ma def li muy jàppee nag moom ak baaxam xëy xam li tax ma wax daal waaye nag ne ko moom ci gërëm di ko sant te ñaan loolu ma jàpp ci noonu yàlla dëggal ko jërëjëf.